kër gii sëriñ Touba moomoon. kër gii sëriñ Touba moomoon. mi ngi koy yeesal. mi ngi koy yeesal. lu ko ci waay jox. lu ko ci waay jox. ak foo ko joxe. ak foo ko joxe. mu defal mu defal ko ci. koo mën a doon. ak koo mën a doon. mën a ko. ak fu mu a bàyyi ko. mi ngi sant ñëpp. mi ngi sant ñëpp. di gërëm ñëpp. di gërëm ñëpp. di soññu ñëpp. di soññu ñëpp. sëriñ Baara. sëriñ Baara. nun taalibe yi. nun taalibe yi. sunu xol sedd na ci yow lool. sunu sedd na ci yow lool. ngir woyof nga lool. ngir woyof nga lool. ba kenn ku ne mën a ànd ak ba kenn ku ne mën a ànd ak yow. xam nga sëriñ Touba lool. xam nga sëriñ Touba lool. ba moo la may lii nga yor. ba moo la may lii nga yor. ngir ku ko fi mës a nekkal. ngir ku ko fi mës a nekkal. doon nga ab taalibe. doon nga ab taalibe. topp ci moom. topp ci moom. buy julli si jumaa. buy julli si jumaa. nga garde ko. nga garde ko. ba mu julli ba génn. ba mu julli ba génn. ba dugg ci wataam. ba dugg ci wataam. nga soog a dem sa yitte. nga dem sa yitte. loolee nag. loolee nag. dara taxul doon nga doon ko def. dara taxul doon nga doon ko def. lu dul xam goo xam sëñ Touba. xam goo xam jege goo jege woon baaxoo. ngir jege goo jege woon sa wajuru baaxoo. moo la moo la may loolee. nag kon nag noo ngi lay sant. noo ngi lay sant. te bëgg nga ñaanal nu. bëgg nga ñaanal nu. nga doon ab roywaay ci nun nga doon ab roywaay ci nun ci xam nu ñuy ci xam nu ñuy téye sëriñ Touba. ak nu ñuy sàkkoo ci moom ngërëm. ak nu ñuy ci moom ngërëm. noo ngi lay sant bu baax. noo ngi lay sant bu baax a baax. di la gërëm bu baax. di la gërëm bu baax a baax. jërëjëf. jërëjëf. sant nañ ñëpp. sant nañ ñëpp. waaw sëriñ Mountakha mu ni li nu jëkkoon a wax ak lii sëriñ Moustapha Ndiaté wax nee na yóbbaale na li mu waroon a wax lépp li mu ciy dolli moo di jataay bu demee nii Cheikh Mouhamadou Lamine nekk fi ak njabootam gi ñu di ci fas yéenee semb semb wii nee na moom amu ci lenn lu dul di yeesal ak cantam di wane mbégteem di gën a yeesal ak jaayanteem rek ci yow mii fi nekkal Serigne Touba fas yéene ànd ak njabootu Serigne tubaa gépp nekk ci sa wet nekk ci sa gannaaw fës yenee liggéeyal Serigne Touba rek mun nee nañ xam nañu sémb wi nga sémb ak yéene ji nga am ak pësteef bi nga am ak bëgg gi nga am ci fës yéene liggéeyal Serigne Touba. nee xam na ko bu baax a baax a baax ñu ngi la ci sant bu baax a baax di la ci gërëm bu baax a baax di gën a yeesal seenu jaayante rek fas yéene ànd ak yow rek liggéeyal sëriñ Touba loolu rek la ci am lu mu wax nee li des lépp Serigne Moussa wax na ko kon nag jërëjëf jërëjëf. waa mu ni mu ni Serigne Mountakha li mu wax doy na sëkk kon xam naa dañu daal di yaatal rek. mu bu ko defee mu euh, teg xeer wi tey def ñax